moo mat nit ñi teg leen ci siraatal mustaqim Seex Samba Jaara di ko wax ni yaa xalifata rasulillahi ala iyaali wa qawsillahi wa yaa imaamu awliyaullahi wa xutba axtaabi rijaalillahi ni ko maddattu kaffaya li waj ilahi ilayka rajan ata allah bika tawassaltu bi am amdillahi ajib munadika li wajillahi anna muhibuka li wajillahi wa murtajika bi rasulillahi kon damay wax ni ñaari bayti samba jaaro yooyu rek mag ñiy way rek ñépp ci lañuy ñuy way tamit ñu koo jeexal yàlla def na la nga wuutu yonent bi alayhi salaatu salaam ci kaw suuf waaye wàllu yi it yàlla dajale na ñoom ñépp def la ngay seen njiit waaye xutbu yi ak aktaab yi ak nujubaaw yi ak nuquya baaw yi yàlla def na leen yaay seen kilifa kon sëñ Mbay Jaxate sëñ Musaa sëñ moor Kayre tudd turu yaa ca des ak tudd dëkk ya waaye Samba Jaara tënk na leen lépp foofu kon nu ngi sant jotal néew bi ci jëmriñ jëwriñam ji ko fi nekkal tey di sëñ Mamadou Maxtaar أيده له والنصر وواتى لأمره واي دي سانتي سونو جوري سيني مودو مصطفى دي خليفة شيخ ساجي سي جامونا بي واي دي نويت sant fàttaliku ñaanal sunu waajur wi fi jóge ni Cheikh Bàcci Mbay zaira bi masamba نفعنا الله ببركاته sëñ bàcci mbay mii nga xam ni woyu juróom mu ngi ko tudde sëñ sàmba yàlla def sëñ Masamba sëñ Tuubaa jàppoon ci loxoom ni sëñ ni Masamba mu ni ko Mbàkke mu ni ko jàppal saajoy wëllëre ñoom ñoom dunu woon ñaar kenn lañu woon dañoo mel ni ay seex noo bokkoon nu ñu daan solo bokk nu ñuy kaalawoo ku ne yàlla def ci baat ci yow baatin mu caatloo sëñ ma sàmba mi euh, tuddee ko ko ndax dëgëral wala lëre googu Cheikh Sadio nag soppguma sopp sëriñ Touba jagle gi yàlla jagleel sëñ Touba rek la ko jagleel juróomi xalifa la am ñoom ñaar ku ne sa benn xalifa amul at ci sax xalifa sëñ Abdou Xaadir amul at ci xalifaam waaye sëñ Mbàkke mbayit amul aj ci xalifaam seen ñaari doom yu jigéen it ñoo bokk wenn weer yu ñu génnandoo àdduna ci ñi fi des ñi fi desoon sëñ bàcc nag yàlla tudd mu guddeel fanam waaye bi juróomi xut xaw si bi juróomi xalifa yi matee la yàlla gàllankoor ay cëram nag defatul dara lu mu defati lu ñu defati sët yee ko ko defal kon moo fi desoon di bàyyi sët yee fi des léegi kon dëxëñ bu yàlla dëxëñ sekkere ci Seex yi feeñ na foofu ndax lii Basiru wax léegi li tax sëñ Tuubaa ni ko saajey mu ni ko Mbàkke mu ni ko xalima gi ma yàlla bind yow la ci teg damm ko ku ko dégg day rëy fi yow lool waaye daa oyof lool ndax ñi dem ci seen seen sëñ Tuubaa ñëpp sëñ Tuubaa liggéey la na leen nga door a am ngërëmal sëñ Tuubaa Cheikh Saajey doo nga dem ci sëñ Tuubaa bi muy dem ci moom fekk na yàlla wañ ko leeram ko fu mu jëm bi muy wër sëñ Tuba ba fekk kër as kamara bi ko sëñ Tuba nappee téye loxoom jàmmanteeg moom da ni jëmm yi dee ngi doo gisee waaye ruwee gise ne bu yàgg Sadio mu ni ko Mbàkke mu ko loo liggéeyal sa borom ba egsi ko fi ko egsi mu wax ko ibaadaat yi kii wax léegi mu ne ko Sadio fii nëbb ak si wu fi gis naa la ñu ngi la ñu ngi la mettee la ca aras Sadio xam ni nag kii mu ñëw mbër la mu mënee su la jot mu génne kaggum wan ko la ca ne sëñ di ko xool ba gis ciw génne ko laaj ko la ñaata fan la ko daan weer werd mu wax ko daana ko def weer léeg-léeg ñaar fukki fan léeg-léeg ñaari weer léeg-léeg fukki fan ak juróom te ko sëñ bi nag jënd loo sondeel mu jox ko ko mu bind ci tur bi ne ko demal jëfandikoo ko keroog ba ko Seex Sadio yi defee fa mu bëggoon a ci boroomam keroog la fa daal di àgg kon loolu mu wax mooy la ku fa dem ci sëñ Touba loon na la ba nga am ngërëmam waaye moom la mu yóbbu ci la ko sëñ tubaa seexal yemoon ci seexal ko ci da ko wëlbati ko it boole koog ay ñoñam ndax gis na ci moom loo xam ni te wàllu yu kamal la secret ngi ci moom kon loolu moo tax ku sant Mbàkke ku ne sant na fonk na ku sant Mbay sëñ Saaliwu 1973 dafa ñëw Tëngéej fa muy dal te jokkul ma dem nuyu ji ko booba jëmm ji tuut na lool ma sol mbubb yu gàtt ñëw waraam nuyu ko ni ko Mbakke Mbay la ni ko Seex Saajay mooy sama maam Samba Jaara lañ ma tudde mu ne ma ku jur ci doomam ma ni ko sëriñ mbay ki jëkka doon xalifaam dafa téewaat sama ñaar loxo xëcc ba mu dëgër ni ma dama bëgg ñu fasante wëlëre wa suñu way juru baaxee espacetante woon wax ko ñetti yoon kela laa laxasuwaat nag ni ah way jur yi jébbalu mooy ci moom de damaa daal di wëlbati ko ni way jur yi ba tax ma am lii naa daw laxasu liggéeyu ci ñoom ndax samu jëmm ji mayuma lii way jur yaa ma may lool kon naa dellu laxasuwaat liggéey leen ba am ngërëm ci ñoom liggéey naa sëñ bàtti miit ba ma ne ba bàyyi sàmba ma ne ko mbay man ma murit saadix nga te ku mu ko wax nga gëm ko waaw wali yu kamal la jëw naa ko timis kasu rajab mu tont ma yooroo do kasu rajab ndax damaa ñëw ci kër gi xool fu ne taalibe yi tabax fii ma ne sëñ bàcc bàcc daal moo laa biir rek moom daal jox na kër gi taalibe yi tabax nag moom te néegub saa Seex Saaje gis ma ko fii joxañ benn béréb ni fii daal bu ñu ko sëñ bi joxoon dinañ fi def néegub Seex Saaje ca suba xaadim mi dawal oto bi ñëw ci yoor yoor bi gaare ko ci garab gi ñëw fi ma doon jullee mu teg fi sees bi indi sëñ bi teg ko fi ma ñëw nuyu ko ci wetu ndeyjooram mu teg loxoom fii joxoñ ma na ma joxoñ ne ma bay sama ma ne ko mbay mu ñëw fii balaa màggal ga jëf neel Moustapha na ma fi defal néegu néegub Seex Sadji waaw waaw kon kooku ku mu ni murid saadix murid saadix murid saadix nag nit dina seex sax du am daraja ji ndax ñu ne day wax murid rek murid murid jox nit ñaar téeméer mun la murid saadix nga te boo ko nee xam nga sëñ Tuubaa mu ne xamu ko waaw sëñ Tuubaa mooy xam murid saadix moo ko bindal boppam indi araf ya wax nañ le li moy mouride sadiq toujours damay wax rek wax du gàtt yoll la seigne touba limu wax moy deug mim gi dafa wax ni mu abati seexi ragi rifqa yaagi gi yaqinul xal bi gi dalil sad gi sabrun lif gu dog imtisal lawamr del gi daawamun àlla ya khaf gi khalbun salim kon murit daa judduwaale bëgg sëriñam waaye raa gi rifqa tey ak dal mom la wara bind mom la mo ca wara teggu إن الله رفيق يحب رفقه yaa ngi yaqinul qalbi bila xuróorin wala nifaaqi gëm sëriñ bi nga jébbalu ci moom ci lu dul war ak naafiq del gi dalil fa ama dalil fa bil quran wala tiit bépp jaamu yàlla booy def teg te loo ko ci alquran ak addis te teeylu te xerawlu sa ndigal ak sëriñ saat gi sabrun inna allah ama sabirin sëñ tuba wax ne sabrun ala taati lay wa sabrun an masiyati lay wa sabrun fi imtisali la amr kon nit ki day doon julit bu mat bëgg njulim te mut mu dem wuti sëriñ bu mu nëbbeeg njulitam ba seytaane bëgg ko bañ koo fëgg kon liif ku dogga dooru ñoom ne imtisaali la waamal waaye del ga dina daaw mun àlla yaa bu ndigal jibee kat nanga ca na nga ca daal di sax kon ndigal kenn du ko gaaral dama dégg nag baatu ndigal ñu koo rocc ci murit te baatu ndigal mooy yoon wi bu fi jógee yoon wi tax ñu mel ni ñëpp li ñu wuuteeg nit ñi moo di baatum ndigal dégg ndigal daal di jëfee déggu tere daal di bàyyi waaye bu ñuy bàyyi baatum ndigal di mel ni ñëpp nag te ruur maa ngi dugg ci réew mi itam ci dëkk bi sax sax te bàyyi baatum ndigal dong moo tax waaye bu ñu xamoon kañ sëñ Tuubaa làqu ci moom jëfee ndigalam bàyyi tereem ruur mi du dugg ndax wegeel gi dina fi ne ba tey waaye ku xam sa secret yab la la sëñ bi joxoon ginnaaw bu ñu ko jubloo sëñ bi jox nu gannaaw sëñ bi dafee bàyyoon àddina bàyyi fi buureeg li loxoy buur yi jublu yàlla ba yàlla jox ko lépp waaw yàlla jox la lépp laa jeetoo ñu di la fekk si looy soxla da ca loxoy buur ya kii bi muy bi may wax naan dama bëgg ñaan odaas jaa ci ma dikkeem ñang ndax suñu mbokk la ndax dem ci euh, bi fi newoon ma porte parole dama ñaan ci yàlla ni yàlla bu ma ca bokk lu tax dem ba ci euh, euh, président lu ma koy wax seex sa ñu njabootu seex saaja yi seex saaja yi fu mu yokkoo xam-xam yokku fa wilaaye yokku fa ngëm dem waaw dama ni yàlla moo ci bokk yàlla tudd ko dem de demuñu faf waaw kon loolu moo ŋànk yoon wi مريد دي خام بابام خاف غا ديك خال بون سليم اليوم الذي لا ينفع المال ولا بنونا الا من اتى الله بخال سليم كون سيغ بي يوبو نتي سي غورب بي كون سيغ بي دا تگ مريد با مريد دغر دي نيت كو ييف ويسا ياقو بو دور كو ليغيلو تي لا دورو واخ ني توبا لي عبد مريد صادق لهما بخدمه او بي اوب او اديات لي عبد مريد لا واخ دي سيغ بي ليغيلول كو مريد كو جيبول ول defu ko dara lu dul sàkku sa fàkkul bu ko bëggee mu sàkkul fàkkul àjjana ëllëg waaye liggéey la buurit saadix bi la wax tuuba li abdin muridin saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi ubbin aw adiyaati murid bi nga xam ne saadix la sëñ bi nee na boo amee doole liggéeyal ko boo amee alal addiyal ko boo ko amul cofeel génne ci diggante bi mu yóbbaale na yóbb yonent bi yóbbaale foquraal ma addiri na yo kon sëriñ bi teg nañu fu wér noo war a xam nooy kan ki bàyyi damay wax ni ki bàyyi këram bàyyi bokkam bàyyi dëkkam taxu ni day day gàddaay ni day wuti ngëmam ba ngëmam sankoo na seetaat boppam man de dama ne Touba dama fi indi sama njaboot mukk ci jamono bi ndax lii sëñ Touba di tere képp ku ci ne ba faatu boo defee ne dangay dem àjjana nax nga sa bopp barke Seex Saaji waaw ndax sëñ Abdou Lahat ma ko wan dama teg ci sama bot tere ga gis naa koy fan di ko xerew lay fan ci li ma tëngee xame de daaw ma wax ku néewooni wax la waaye ba mu amee nag sëñ bi wan ma ma teg sama bët Tuubaa fees dellu sëñ bi di dàq di génne sëñ ma tirim Seex Saaja yi moo téye yére yi bañ mu teqatal ko ba aay jub ci kaw soroor bi de انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم الخامس ان لا بكم تختصمون انا مير امنا بند ايه با يوب كو سو بن ماك اني ما لي مير لا لاج كاب غور غو ام خام با واخ ما سار وا زورت سمور الله تي ام اك مانيا لي دينا نيو دي اي فان توتي رك لاني تاخ سيغ بي راديو داكار نيو واخ تريم غوغي كون نك مونيت بو بوغا موتش dafay bàyyi tereg sëñ bi sax ci ndigal li di góor ci jaam yaa sëñ Tuubaa kat wóotewul dara lu dul lislaam ki yeesal lislaam nag du ko taxal kon koy ko tax yaa tax sa bopp sëñ bi mën laa jaamu fu ne nga julli fa julli ci géej gi bi julli bi la ndar fu ne nga julli fa tabax yi jumaa juróom-ñaari sooroor ñu di doyafal lislaam kon sëñ bi lislaam a ko tax a jóg te képp ku ànd ak moom ne ci li la neex bu ëllëgee di gis loola naqari te kenn du la ca génne kon lii ma leen di wax laa bi la rek ndax léegi daanaka murid yi da nga ñëw jébbal da gis sëñ boo xam ne dañuy ràng di jébbalu ci suba ba fajar te njébbal gi ki nga jébbalu ci moom war laa wax sar njébbal ak li sëñ bi digle ak li muy tere ak ku ànd ak moom ni ngay mel ak ki nga xam ni yaa ngi gaaral li sëñ bi tere ne ca dala cay fekk ëllëg kon loolu man aslama man kasaba illa llah kasaba bi sidq isjao laysa fi jaana maswe lil kafirin waaye nag wala si jaa bi sidq wa sadqa bi wala ulaykum mum taqoon law mayasono inda rabbim salika jasa al muhsinin kon ki bëgg a dem àjjana sëñ bi kii ñii nga xam ni ku leen digal du ñu def ku ñoon tere du ñu baax ñoon la sëñ bi génne yàlla du am day du am baay du am soxna du am i doom kon boo ne yàlla da ngay daal di bëjju la sëñ Tuubaa doon dàqal isa yaa ngi ko koy jëñ mooy moom sëñ Abdullahi la wax wa xaadiman li rasulillah nga ñëw ni ko yàlla diidéet dara ji daa rek waaw ndax mboolem yonent yi li ñu yoroon don ko liggéeyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo boole lépp jox ko sëñ Tuubaa ni ko nag maa ci maa ngi ci sa maa ngi ci sa gannaaw yàllaa ngi sa kanam ku la dëkk nun lay ku la nun lay dajeel kon kooku lu mu dé lu dajeeg moom lu mu dal sa kaw nga daanu waaye nag du yàlla de ku ko wax ni yàlla nga bis penc dines na la duma sëñ Tuubaa du yàlla sa sàmb jaara war na ko fu ne wax na ko daraja ju ne jox nee na ko yaa moom ñëpp waaye waxu ko fenn yaa yàlla te Samba Jaara dong ne xam na sëñ Tuuba war na ma saa isra bu wér saa war na ma baatinoo bu wér ni ma lidul lidul wér waaw nit saayir la ak baatin ndax géwél balaa way géeram sax dina dem laaj koy maamam laaj ko bokkam yëpp askatam yëpp moo tax Samba Jaara wàllu la door a dem ci sëñ Tuuba koo topp ci moom nag seenub jeeneenam fu mu toll nga toll fa di nga mën a wax la mu doon waaye booy lambatu nag lee nga juum juum bu dul ba nag ma taat suñu bopp bopp tuuba tuuba dellu ci yàlla santaat tënku tënku ci ndigal yi bàyyi tey tere yi waaw nekk fi daal di wax ji wax lële dara ji sëñ tuuba roy leen da koo gën damay wax damay wax ne toujours dem dem paxaan euh, di fi di fi xëppi seen baax na lool waaye sa jikko mën nga tënku ca ñoom daa maara day maara day musta weddi ndigalal bu tedd ba tedd ba mus la génn këram buntu këram te amuñ ga léegi nag jigéen bu ne kër bu ne kër lay kër lay loolu nag lu doy at du benn jigéen boo xam ne yaa ngi daw te la ngay rek waa waa am borom kër lay wute kër tee ah? te ngaa jàppale sa borom kër ba jur ba yor kër gi waaye am borom kër ba noppi say bokk naan lan ndono rek la ñu bëgg de waaye jóge jóge ci giraawaali gu rëy rëy waaw ndax xaajija ñu xaajija xaajija musta génn màkka commerce na bay da daan da daan jënd ci dëkk bi wut ñu ko ko yóbbule ba ci lay bokk ci ñu ma daan yónni te bi génn ca loola génn ca loola boole alal jaag lépp def ci yàlla tey gis nga fi lislaam nga fi tey maam jaara gis nga fi yoonam yi toll bokk naa la wutar kat la wutar kat bëgg doon a dongal tax ñu la taxeer waaye jaamu leen jaamu leen yàlla te dégg ndigal tënku ci bi tënku ci seen tënku ci seen ndigali sëriñ ndax sëñ sa yigéen bu ja bu ja bu jaamoo boroomam juli juli weer weeru koor am alal ju mu génnee dégg ndigalal jëkkëram sàmm la bu faatu la bu faatoo dañuy ubbi bunte àjjana yëpp ni la seetal bu la ci neex jaar na leen leen kon looy wax nag naan kenn séddunu kenn séddunu la ba noppi ba noppi ah ñuy daw leneen loo xam ne duñ ko jox góor ak jigéen duñu jigéen duñu mën a tolloo tolloo gi la la yàlla jox moo ne bi mu bind bi mu bindee aadama bind na awa bi awa bi awa bi aadama xemmee xool ko bëgg koo laal da ko ne bu ko laal te joxoo ko canam joxoo ko de waaw ah, laata ma soo maara mu ne ko ma maara ma ne ko salli sallallahu alayhi sallam waaw ah, julli ci yonent kon yow yaa ngi kon kon dañu daan rey di suul bëgg fanaan bëgg fanaan mer ngay fanaan noo ñu islam islam ñëw dindi leen lépp jox leenub cër lu ne mu jox leen ko bu ñu xeebee yooyu dara di tubaab ya ku bu tubaab mel ni tubaab dem ca tubaab fa Cheikh Sadji Cheikh Sadji sa maam Sadji Sadji Sadji jërek secret la jërek secret la wax na ni fu mu fàttali fu mu fàttali koo géntam or mu ni ko mbay mu ni ko fi ma mu ni ko fi ma jëkk a fàttali ko sama gént mu ni ko ba jëleel ba jëleel ba ci lal bi ceeñeer néeg bi doon dugg ci soxna soxna su naa wax mbambare moo génn ne ndaag mu ni ko aan mu ne kon ko ko déggam kon li ko sëñ Tuubaa ni ni ko màcc yóbbu nga màcc yóbbu nga màcc yóbbu mi mooy ki juddaale wàllu yóm tàng rek ndax bëgg nit ni ma ni ma bëgg Tuubaa mel ni loolu rek mooy tax may wax rek ndax damaa xam secret Touba ndax ni ñu am ñëpp dañoo jee ci Touba xam secret Touba xam li ci ne xam ni suñ Touba daj ci Touba ak ba ak gis Touba kon ku ku yàlla tënk bu dugale ci da ngaa war ni alhamdulilah waaw ndax mucc rek a fi ne waaw ko samba jaar tatay doy doy ren la sa la sur xëy na ni xëy sa xaloon waaye tësal ma tatay musal borom Touba saxal Touba Sulxayni te tey dajeeg weñ la kaste woon eh, eh, eh, ñaari ki yole di sant mbooloo mi ndax kenn mënul dara fii bu melee nii du asana ki bokkam rek bokk yi buñ buñ ñëpp ñi fi daj ñëpp buñ demoon tuuti la ñuy doon yan ñu yàlla defal ñuy murid sadiq jëfal nu tuubaayet bis penc nu dekkee tuuba ji situmu la xeeran waqitu mustaran allahuma salli ala sayyidina wa sallim في الدين وسواء بأمنا فتدخل بيني أبد وبينما يجرسوا أن ونكر بأمنا زينب زين ما زر مني وما بطن وجاني وسر بمالك وشافعي وبي حنيفة وامد للسجب بجاه جبريل السجب سؤالي وبلغني مبلغ رجالي بجاه ميكائيل بلي نعما والنفع يجعل مثل غيش كرما بجاه إسرافيل بلي يسمع ولتكفني أهوال يوم الخمة بجاه مسائل كل يا جميل طول حياتي وكسب بعض الرحيم وجعل توسلي لمن يدعو بي سعادة صدرني واغفر لي بي ولي وليجد وللذي دعاني لنزمي بالأمن والرضوان وبسعادة وبالعماية عن جملة الأسواي والغناية وبالنجاة من سؤال واسع وسرات الموت ربي والنساء وبالبسارات وبالسرور عند مماتنا وفي النسور وسليا وسلما على النبي والي ما زاب النجم واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بها واقفا سادتي يا ربي والتف بنا وخوينا وكلنا وابلغ خصنا حسن الختام ربنا والتف بنا وخوينا وكلنا وابلغنا الخصن القتام ربا وسليا على النبي وسلمي وقد بي حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلمي وقد بي حاجة كل مسلم بسم الله الرحمن الرحيم خلى شيء ما يخبرم توبا دندال دي خمني برم توبا اي برم توبا جوغلان تخو déglu lii may wax borom Touba ngeen dal xam ne borom Touba ay borom Touba jóg leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba ay borom Touba bu leen ma tànqal na ngeen cellan ku jóg na ni cell te bañ di ngeen xam tey borom Touba yónneen ba may na ko yooyu yónneen ñoo ko amoon mu doon yu tey da ko booleel borom tuuba yeneen ba may na ko yooyu ya ñoo ko amoon mu dooni tës tey da koo booleel borom tuuba bàyyi ndeefi jikkoom yeneen ba moo ko jagoo mbooloo mi yërmane mboo jikkoy borom tuuba xam-xam ba sii sa amoon ci yàlla muy lu tasoon diggante gaaña la booleel tey borom tuuba idrisa yonneen ba daa dëkk durus abadan googee durus moom la jagleel tey borom Touba njàmbaar ga noon borom fergaat gu rëy ga jagoo moom la yaaram ba jagleel tey borom Touba kallam nga jalli keroog toofaani jalli si ci xiiti Amadu mi njiitalal borom Touba lu doon fasaak borom maasaar ga moo ko maanuk songay buga mooy maanuk borom Touba te muñ safa bañ ak balang yemoo ndigal bajam wóolu dëggal ak rafetal njortu te seet pas ba ci xol xol loo xàcc loola dal dal muy fi fee na ngeen ko xam moo tax ma wax ni lii ma fas moo gën ci man dawali fas moo gën di fecc ak a fas moo gën di wekk ak a jam danaa beral ci li ma fas tuuti ci xut bi bi ma fas ne moo ma doy te li ma fas doy na du fi moom ta kanam fii du barab faful kër fas ji ci moom dara du keram gi naaj la kat du ker lemam di nga nañ mooy xorom mi dem witani di ko biiw baw ko kat yi siiñ ko di ko yeew di dox di xiiroo ba siiw talay bu dee ta dal di dem ku dul am kër la la fee adduna këru ku dul am kër la fee moo tax ma dëddu jublu fee li tax nu jublu fii ma fee foo la soxla woo ñañam te tey ma jàngal leen nañuy fasen njulit xëy bay mooy tam ne ne jàkkam wat mooy borom ci gaangam ba dënnam te seede yaari baat ci yi te fa sellal te seede loo buur ba doy ba seede ci lu leer du lëndëm te dëddu àdduna tëwut bu mat sëriñ taatani yenam te bul tawat benn lu dul ay tawatam sama mba jaara may neena te kooka mooy bamba buleen dese ba jug wuti keneen te kooka mooy bamba buleen dese ba jug wuti keneen bëreer ci man ni mi dungeen tase ku gindi si ngëlëm def ni man dama ni man la béykaka bamba maa ngi man fukki barab ma teg ca benn fu ñu fa tollu maa la gëm bakkan bu dee tàggoo di waaj saafara deñ ak i alaaj soppe bi yow la ñu falaaj yàlla ak sa barke mama la gëm buru di xar ba dal malaaka si di bégalal sëñ bambamba yàlla ñu àndal yàlla ak sa barke ma la gëm buru huro ci ko banaaw jëm asama wane gannaaw sëñ bamba yow la ñu faaw yàlla ak sa barke ma la rabbil alamin